mbégte ñuy am saa su rek di àndaat ak yéen suñu mbokk internautes yi ci seen eh, émission Sen Cas seen cas nag comme ni ñu taamoo di ko defee rek tous les jours dañuy ñëw ak yéen ci ay cas yu bees cas yoo xamante ne rek chaque jour mi ngi ci toile bi te yéen ñi nga xamante ne yéenay internet yéenay soxla ñu koy waxtaane waaye laataa ma leen di wax tey itam bi nga xamante ne moom la ñuy waxtaanee comme ni ngeen ko xamee rek sa su ne damay ànd ak plateau bi ak ñi nga xamante ni moom mooy Ramatoulaye ak ki nga xamante ni moom mooy DJ Mo en même temps ma nuyu rek ki nga xamante ni moom mooy Mo Mo maa ngi lay nuyu. Euh, maa ngi lay fay euh, Mariama euh, di nuyu Ramatoulaye. di rafetluwaat encore une fois ci ànd gi ñuy ànd seen waaye nag tey dafa am loo xam ne xaw damaa metti euh, damaa bëgg mburu yeewu yow di jënd mburu fekk fa ndambek mayonnaise kese ñu ne ma mburu amul donc loolu nekk sama problème ba tey fondé laa ndekkee <laughs> am na solo da ngaa fekk sa mbokk si Cissé bi ko ci suba si ba noppi xam naa yow boo ko jooyee day dagan waaye rek bu leen fàttee Ramatulaay tey mi ngi fi di ànd ak ñun moom tey ay biscrème laa ko gis muy ndekkee amaat euh, contentement bu baax bu baax dafa teew fii ci seen émission seen ta waaye waaye Mariama bàyyi tooñ sama bis crème bàyyi mag moom damaa yow aw ma mënu ma jël bis crème eh am naa ah ci ah <laughs> droit am naa ci droit àgg si kër gi mais yàlla baax na xëy na grève bi léegi tey mu jeex ay ci dañuy rek daal di ci li nga xamante moom mooy mu thème bi ñuy waxtaanee tey mais xam naa ne internet yi def nañ benn constat Bla Ndiaye bi nga xamante moom lañ plateau bi tey taamu doy na waar am na ku ci toppandoo sa morom daal mais amul solo xam naa dina ci gën a ñëwaat ci kanam <laughs> mu nekk loo xamante nii xewee fële na la ca Castor soxna soosu nga xamante ne rek da doon liggéey ci benn kër mu nekkoon benn femme de ménage boo xamante ne rek subir na loo xam ne lu doy waar la lu metti loo xamante ne ni euh, internet yi ñaaru nañ ko aussi tiit nañ torop ragal nañ ci liy xew jamono ji ci réew mi diggante violence agression insécurité bi nga xamante ne ni noté nañ ko ci biir réew mi mu nekk rek lu ñu fas yéene waxtaanee tey jii ak yéen euh, ma ñëw ci fee bi di jëmmoo gis nañ li xew fële ca Castor soxna si ñu fëgg buntu këram ginnaaw bi mu nekkee di liggéey di liggéey ci biir kër gi mu tëjji rek euh, euh, malheur boobu nga xamante ne ni moom moo am euh, li nga xamante ni moom moo ko dal benn soxna la boo xamante ni moom bi ginnaaw bi ñu tijjee buntam moo ko tijji mu jàkkaarlook moom nee nañ mu abiyewu en burka mooy euh, muuru ibaat yooyu nga xamante ne soxna yi moom la ñuy muur ba nga xam ne sa bëti la koy feeñ soxna soosu bi mu ko bi mu ko ibilee daf ko def rek euh, assomé ko mën nañu waxee noonu euh, ba moom mënatul dara yëgatul dara ci boppam mu daggati kanamam dagg li nga xamante ne moom mooy awram di ci ween bi génnee deretam ginnaaw bi mu ko tijjilee lenn la ko wax rek mooy que ni j'ai besoin de ton sang maanaam sa deret laa soxla moom ca ca ca la ci boobu la ci gëj a xam lu bëri Euh, mu nekk loo xamante ne ginnaaw bu mu ci jógee mu dem dem police def déclaration ak euh, benn certificat médical boo xamante ne ginnaaw bi mu demee ci médecin yi saytu ko xool ko tey jii Sénégal yëngu na de. tey cas bi loolu la. kaabu ah! doy waar a ngi noonu mu nekk insécurité totale boo xamante ni jamono ji euh, nemmeeku nañ ko ci biir réew mi lan moo waral loolu. waxtaane nañ lu ne ci dëkk bi. Mhm. gis nañ fi lu ne. <laughs> waaye lu mel nii moom man man lii daf ma ëpp doole. ah doy na waar sa deret laa bàyyi. <laughs> damaa leen ma baal leen ma dama sérieux. Mhm. Euh, man senegal damay dama xamul ndax ñun mujjug jamono gi tukki gi fii la bëgg a njëkkee <laughs> wala nu mu fa demee man gis naa koo xam ne. Mhm. dafa dugg ci kër cambriolé sàcc tele mhm. gis naa koo xam ne dafa dugg ci kër sàcc fa xaalis waaye nag kuy dugg ci kër naan deret laa soxla. deret la soxla. lii mooy test ginnaaw bi mu ci amee li ko soxal moom dafa rek daal di jël dara sàng ko ki nga xamante ne mooy ndaw soosu nga xam ne moom la def jëf ji ba pare delloo buntu kër gi ndànk dem yoonam li ci gën a doy waar mooy que ni nit kooku noonu jëlul téléphone sàccul télé sàccul collier sàccul dara daal moom daal. moom deret a ko ñor quoi. deret bi ko ñor daal moom la dem uti ji ma ne nag ah doy na waar bu nekkee ni ngeen baal ma ci kàddu gi vampire léegi dañu commencé di génn bëccëg di dox bëccëg ah ñun tey ji fan lañ jëm. déet man li may laaj li may laaj mooy deret boobu muy laaj gannaaw ba mu ko amee moom deret bi nu mu koy def. ah boobu nag dinañ bàyyi police moom mu mu mu dox ci loolu yaakaar naa ne police dinañ ci andil ay leeral moom mu nekk fee doy waar tey jii bu ñu waxtaanee mooy ñi nga xamante ne femme de ménage yëpp seen fiti dalatul. nu yi ñi nga xamante ne ñoom la ñuy dénk kër yi borom kër yi xëy di leen bàyyee seen kër ndax am nañ ci ñoom benn confiance bu war a mun a tax nga xëy jël sa kër ak sa njaboot dénk ko kenn tey ji bu ba nit kooku noonu amatul sécurité ca biir kër ga faute bi euh, man du ma waxagum femme de ménage mais dama ne dëkk bi bu ñu demee ba tollu ci Sénégal boo xam ne yow amatoo possibilité téye déjà sa téléphone dox ci mbedd mi bu ñu demee ba Sénégal amatoo possibilité doxe nu mu la neexee ci mbedd mi loolu weesu nañ ko mais nag bu ñu demee ba lan xew mbedd ma lu gën a pire lay xew ca mbedd ma di ñëw ci kër yi assez ah, grave mbedd mi dañ lay agressé nangu sa téléphone ak la nga yor. léegi kër yi dañ lay fekk jël sa deret mhm. Sénégal am nañ problème mhm. te nag insécurité bi moom mu ngi doog a total insécurité bi dafa particulière oon mais léegi moom mu ngi doog a total et man je bien li waral léegi dëkk bi euh, euh, insécurité bëri bopp sa bopp d'abord bala maa ñëw ci cas boobu fi may commencer que tey da ngay dugg ci oto gis ñuy agressé nit wala ñu koy tafu yow nga gis ko doo réagir doo def dara bàyyi ba mu dem nga naan gisoon naa ko toll nañ ci Sénégal boo xam ne dangay génn ci mbedd mi gis ñaari góor wala ñetti góor di agressé jigéen ba yegg si di ko jam ngeen nekk ful seetaan ko buñ ko reyee ngeen sinap statut ko ne ñun ñooy témoins yi kon Sénégal bu ñu demee ba toll foofu kon kër yi buñ ci wax ndax kër yi da ngay dëkk ak nit kër yëpp mun naa ne ay locataire la doon. Mhm. da ngeen di dëkk nit ak ngeen dëkk kenn xamul sa morom et grave il faut ñuy xamante il faut ñuy jàppalante il faut ñuy dimbalante mhm. parce que benn lam du yëngatu Sénégal dafa war a toll foofu mhm. ndax nag gis na nee nañu sa mbokk bi njëkk mooy sa dëkkandoo comprendre nga donc nañu ubbi xol yi nañu yaatalante nañu xam ne ay doomu aadama lañ te nit lu mu mënal boppam mënal boppam toll foo xam ne nit ñee koy mënal nañu mënalante suñu biir ndax dina tollu jamono joo xam ne ku nekk dinga bëgg ku la mënal kon boo tolloo ci mënal nit mënal ko lee nag dafa nekk cas bu exceptionnel très sincèrement man je di bien li may laaj mooy deret bi mu soxla pour lan ak aussi lan moo nekk ci ginnaawam ak naka la def ba xam ne tey bon bi rek moo nekk ci kër gi wala ki koy liggéey loo dem na mu am accès ci euh, appartement bi ñëw def directement laaj ko direct avant kooku di réagir mu pompe ko jël li mu soxla parce que loolu il faut ñu dut ci baaram lan moo nekk ci ginnaawam naka la def ba xam ne kii moo fi ne ak lan moo ko may audace mu def la mu def ba pare boo liiree fay mooy dafa aspirer deretu gel ba pare dem ci euh, cuisine bi raxasu ba set génnaat ndànk kon kooku plan dafa ñor daf koo togg ba mu ñor mu dem yëg ko ndànk lekk génnaat sans problème dégg naa nag ndaw si porté na plainte contre X. mais X moom yaakaar naa bu ñu ko jàppee euh, dina bett sénégalais yi de ndax dina bett bi mooy liy nekk ci ginnaawam lu rëy la. parce que nag même cambriolage bu ñuy cambriolé kër du dañuy nekk si un bon jour rek cambriolé. mais dañuy togg togg togg ba mu ñor. doog a yekk il faut ñu gëstu loolu. nga lu am solo xam naa ne bu ñu koy jàngat rek euh, mooy question yu ñu ci mën a posé taxaw seetlu bi ñu ci mën a def rek mhm. mooy ndax nit ki dafa jóg au hasard noonu euh, dugg ci kër gi. tombeek bon boobu wala nit ki dafa amoon euh, benn malentendu ak ki nga xamante ni moom mooy victime boobu noonu di wuyoo ci turu ami di femme bi mu def ay investigation ba xam fi mu fi mu mu dëkk ba xam ban heure la fa mën a am accès ci kër googu noonu ak def jëfin jooju noonu ba génn ramatulaay mu nekk lu doy waar loo xamante ne ni gis nañ ko fële na ci Castor. exactement Mariama doy na waar man daal. Mhm. <laughs> démb daanaka bu ma déggee cas bi j'étais salon. j'étais au salon bi ma koy dégg mais automatiquement je sais pas bi ma liiree ka bi ba pare réflexe bi mu njëkk am mooy jug tëj buntu kër gi je sais pas pourquoi j'ai eu automatiquement peur je sais pas ma ragal am ay frissons parce que dama doon imaginer lu mel noonu daal ma te je suis sûre que je ne suis pas la seule à avoir peur en ce moment muy domestique muy kuy liggéey keneen ak keneen on n'est plus en sécurité on ñoo ngi ci dëkk boo xamante ne ku mu neex dugg ku mu neex génn parfois je me pose la question savoir pourquoi ñun nu ñu amee difficulté dem ci yeneen dëkk yi ñi fi ñëw aussi du ñu amee noonu difficulté je sais pas pourquoi loolu noonu c'est une question à se poser peut-être ñoom aussi bu ñu amoon difficulté boobu sécurité bi même si c'est pas assuré à 100 pour cent dina xaw a tane exactement possibilité. c'est une possibilité pour mais mën na nekk aussi koo xamante ne mën na bañ a nekk étranger non c'est ce que j'ai dit mën na nekk koo xamante ne ci dëkk bi aussi la dëkk. on est en ce moment euh, ñu ngi ci période boo xamante ne ñëpp ragal Mariama euh, c'est une situation très grave parce que nga nekk sa kër nekk sa liggéey nit jóge fee ne la dama soxla sa sa sa deret non c'est quelque chose de grave je me pose la question savoir est-ce que kër gi amoon na gardien ou pas. man li may li may li may wax foofu ci gardien. Mm-hmm. mooy que gis nga il faut ñu jër sëru démb wadde ko tey bu ñu bëggee suñu ëllëg neex ndax dégg nga ma euh, bu njëkk mm-hmm. dangay ngay gis koñ ñëppay xamante ñëppay bokk ndey bokk bàyyi mm-hmm. ñoom ñooy gérer seen bopp sécurité soxlawul la police wala keneen di ñëw mais léegi da dëkk ci koñ wallahi azim mais ci koñ bi dangay gis ñuy ak il faut que ñu bàyyi bopp sa bopp Sénégal la ne ñoo bokk. en fait moom moo précise à ce point parce que loolu noonu mi ngi am ci région yi ba tey je pense que loolu noonu Dakar ji la amut dakaar ji bopp sa bopp bi moo bëri tu vois boo génnee dem si région yi affinité baa ngi am tu dangay dem ci benn quartier rek miinanteeg ñeneen ak ñeneen man miy dekk ci région yi xam naa loolu j'en suis sûre certaine dafa doon li ma leer mais Dakar ji bopp sa bopp bi dafa bëri kenn lijjantiwul kenn. exactement mu ngi des ci kër Mm-hmm. bopp sa bopp nga yegg boobu. Mm-hmm. tey jii du ñu paas ñu bëri dañuy préféré. Mm-hmm. bopp sa bopp parce que on sait jamais tey jii da ngay melewu ci loo xamante ne on se dit que ça ne regarde pas. léegi yow obligé dugg ci dans un pétrin boo xamante ne. Mm-hmm. laa ko mën a waxee mm-hmm. parce que amuñu benn assureur mm-hmm. amuñu benn boo xamante ne tey bu ñu feebaree dañ leen di yóbbu hôpital bu ñu amee euh, comme genre agression yi bu leen fekkee ci seen biir liggéey amuñu kenn koo xamante ne ni danañ ci jàppale bu weesoo ki nga xamante ne moom mooy euh, ki leen di liggéeyal mm, bu paree mais mën a def premier soins yi après mm-hmm. ne la bon léegi ci des nag mënatuma ko parce que yoruma ko dama la jëloon pour di la fay léegi na reste à lan yan la ñuy teg yoo xamante ne ni dina mën a protéger ñooñu nga xamante ne ñoom ñooy liggéeykat yi ci biir kër gi euh, Mariama mm-hmm. gis nga ndaw si moo ragal mooy ragal mm-hmm. parce que man mii di góor sax dama ragal comme que yow dañ lay mbéj rek nga am problème boo xamtuma la nag boo toolee nag ba fi nga war a jàpp ne yaa ngi sécurité ñu fekk la fa laaj ñu la téléphone laaj ñu la xaalis mais deret nañ la laaj donc loolu problème la te aussi ñi nga xam ne ñooy jël jànq yi man j'aime pas dire jànq nañ ma baal ci moo bi parce que dafa diis mais ñi nga xam ne ñooy jël jànq yi nañu xam ne ay doomu aadama lañ te gis nga àdduna ku ci nekk am nga patron ndax comprendre fii ku ci nekk am nga patron te ku ci nekk da nga bëgg sa patron traité la nu baax kon ni ni nga bëgg yow ñu traité la ko dee ko traité keneen ki nga xam ne sa employé la mm-hmm. mais da ngay gis fii koo xam ne wallaahi azim tey bu jëlee jànq bi jànq bi mooy togg mooy fóot maanaam li muy lekk jànq bee koy togg mm-hmm. mais jànq bi boo ko xoolee dèjà li muy sol ne yow doo bëgg a lekk-lekkam bu ñëwee moom dina jaay tubaab gu tubaab tubaab tubaab gu kenn xamul ba pare moom ki nga xam ne moom mooy régime alimentaire am mel nu ko neex parce que ni mu ko considéré la nañu xam ne jànq yi ay doomu aadama lañ liggéeykat yi mhm. du moins mhm. nañu xam ne ay doomu aadama lañ mhm. te si ñun lañ bokk parce que fii patron boo gis am na patron même boo yekkee bureau am na ku la seefe donc ki nga xam ne da ko bàyyi sa kër yàlla jaarale gëm ci sa loxo kon nag war nga xam ne doomu aadama la gënoo ko gënu la mais yàlla nag mooy dof ay dogalam nañu gën a ci am na solo am ci bàyyi xel sax moo mm-hmm. boo xoolee fee bi nii ça n'a rien à voir ak euh, borom kër mm-hmm. kenn la koo xamante ne dafa jóge ci mbedd mi ñëw ci kër gi mais xam nga xam nga xamoon na ma jaaxal foofu ramatulaay man je je je je fais plutôt mm-hmm. référence à ñàkk iman bu ñu nekkee léegi parce que nit ñi amatuñu yërmande tu vois mais ramatulaay xam nga xamoon na sama problème foofu ku ñëw ba jàkkaarloog nit euh, ne sa deret laa soxla non. <laughs> mais xam nga lu ma jaaxal foofu xam nga lu ma moom naka la def ba am parce que nit fit demewul noonu quoi. Mm-hmm. tey balaa nit di débarquer fii ci studio bi. Mm-hmm. day am renseignement yu leer nañ mm-hmm. naka la def ba xam ne. borom kër gi génn na. jànq bi rek moo fi ne. mu ñëw jubal directement ci appartement bi. léegi moo yow si je comprends bien tu veux da nga bëgg a condamner borom kër gi. non condamné wu ma borom kër gi mais dama ne. yaa ngi koy pointé nañu gëstuwaat. moom ami li ko dal naka la ki nga xam ne moo ko def def ba xam ne patron nekku fi te kër gi euh, appartement bi moom rek na fi moo fi ne. Mhm. bu jubal directement ci appartement bi. sonné mu mhm. ubbil ko ba mu def ko la mu ko def loolu lu jar gëstu la. loolu ce sont des recherches qu'ils vont faire très certainement am na solo je pense que loolu la police ñoom. Mhm. comme def na plainte police bi ñoom dinañ ñëw ci loolu. mais moom moo man yaakaar naa ne autant plus que euh, femme boobu noonu noonu am une euh, benn. benn benn peur boobu noonu mu am d'autant plus que borom kër gi di ko am parce que boo bàyyee sa jànq mënoon na dombi ci doomam. exactement mënoon na ko def doomam. donc là on va pas pointer du doigt euh, li nga xamante ni moom mooy femme bi parce que peut-être police ñu moom di après enquête bi dinañ ci indi ay leeral. Mhm. mais la ñu war a mën a wax rek ak lu tax ñuy seetlu instant bi nii. agression yi violence yi bëri na torop ci réew bi mhm. mu fefee bi tey moo ñëw mais peut-être demain dinañ gis leneen ak leneen euh, am na ñu koy waxtaanee ci tubaab bi maa ngi koy gis nee nañ tàmm nañ à chaque fois euh, li nga xamante ni moom mooy élection yi buy waaj a jub si dañuy gis yi ni mel parce que am na période boo xamante ni gisoon nañ ko fi ñi ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy albinos yi mhm. maanaam puune yi dañ leen di sonal en général lu bëri ci approche élection yi ba yàlla day def ndeysaan dañuy nëbbatu bu ñu waroon génn du ñuy génn wala bu ñuy génn dañuy muuru ñu gis ni dañuy faral di ko gis tey dafay am euh, c'est récurrent mais à chaque fois day jël plus d'ampleur bu ñu waajal rek lii di élection yi. Mm-hmm. xam nga xam nga man euh, entre parenthèses. Mm-hmm. li ma metti ci Afrique. mooy lan moo tax africain pour mu falu faw deret tuuru waaye pour mu folleeku it faw deret tuuru xanaa kon yow dëggal jubal leeral taxul a jóg mm-hmm. rikk waay nañ ñu dimbale élection jarul tuur deret yow la ñu wóolu dénk la waaye bu mu jar bu mu tax nga nga nga ngay rey askan bi lay dénk. Mhm. nañ ñu dimbale nañu xam ne. Mhm. fii dëkku jàmm la. Mhm. nañu xam ne fii dëkku wax lu baax la def lu baax. nañu dimbale te dafa jar a moytu nag. parce que loo xam ne ñëpp ko seetlu la. election bu ñëwee. xale yi réer dina bëri nañ téye seen doom yi. élection bu ñëwee moor yi dina bëri na nit ñi gën a veillé seen bopp. parce que damay dégg d'habitude nit ñi di ton nañ ma baal naan ñaar ñooyam ma ne leen ñaar nañ ñu ne ma mbër mbërum làmb mhm. ak politicien kuy ànd ak ñoom boo sax bu sa ginnaaw baaxul yow moom say fan day gàtt donc loolu aussi nañ nañ ci gën a veiller na ci population bi gën a veiller xam ne politique mhm. jarul tur bakkan mhm. politique jarul def lu bon donc ñu xam loolu na solo mooy moomoo li mu rek daal di wax xam naa ne ci loolu la ñuy ñëw rek tëjee émission bi di fàttali suñu mbokk internet yi que ni insécurité tey moom lañ doon waxtaanee te insécurité bi ñu ngi koy nemmeeku fu nekk di wax euh, ñaax rek yi ñu bàyyi xel seen njaboot yi ba si école yi ah, tey ci biir kër gi la suba mën a nekk ci buntu école bi ginna suba mën a nekk ci buntu bërëbu liggéeykaay en tout cas insécurité bi nga xamante moom la askan bi di jooy jamono ji ñu ngi leen di ñaan rek incha allah lii di nguur gi ñu jël ci ay matuwaay ramatulaay laataa ñu bi plateau. Exactement, Mariama, tu as presque tout dit. En ce moment, nous faisons appel aux forces de l'ordre ñu bàyyi xel ci loolu noonu nga xamante ne mooy insécurité bi am si dëkk bi parce que boo xoolee gars yi dañuy sous-estimer cas bi yi tant que meurtre amul duñ topp cas bi sees mais vu que nii la la femme a survécu. Mhm. elle a survécu. mën nañoo sous-estimer cas bi naan waaye vu que dund na dinañ ko topp au début mais duñ ko topp. du am suite mm-hmm. du am exactement. Mm-hmm. nañ def tout pour xam lan moo waral cas bii nii te ñuy veiller bu baax a baax sur la population. ay ci am na solo ah moom bàyyi la rek nga tàggatoo très rapidement. Euh, li may wax mooy que la police et la pour gérer not sécurité. Mm-hmm. mais ñun ñoo leen war a mën a appuyer ci loolu. mooy lan boo gisee loo xam ne jëmul kër. Mhm. jàppale ci la police nga teel ko dénoncé bañ a nëpp nëppal. Mhm. aussi li may conseillé mooy parents yi dañu toll ci période yu tàng. Mhm. période yoo xam ne élection la. nañu gën a veillé ci xale yi. nañu gën a farlu ci xale yi parce que dañuy seetlu à chaque instant bu élection di jub. xale yi réer dina bëri. xale yi faatu dina bëri donc loolu bu ñu ci mënee dimbale aussi population bi ñu suude wu gën a jege la police. xàcceendoo dóorandoo bu ko defee lépp lu ñu bëgg a xeex dafay jóge maa ngi leen di jox dig daje incha allah suba euh, même heure ci Equivox TV. ay ayca mu nekkoon seen tam nag ci seen cas seen émission bi nga xamante ni tous les jours dañ leen koy daal di amal ak ay thèmes yu doy waar ak ay thèmes yu bees ak ay cas yu bees tey nag li lañ leen indiloon di leen ñaan nekk yéen ñi nga xamante ne yéen a koy suivre ak parents yi nga xamante ne ñu ci biir kër gi ñu gën rek bàyyi xel ci li nga xamante ne moom mooy sécurité seen njaboot boo gisee leen lu suspect rek ngir yàlla dawal nga dénoncé ko parce que on sait jamais àdduna waratul ci mhm. noonu di joxee dig dañuy demain incha allah même